appartement de lu fay xew lu fay xew appartement de lu fay xew waaye ñoo ah ah mus ñëpp ndey njaay fakki ah. Ah ah aha dañu foog ne ñoo mus fakki ah ah ah kuñ ko ah. fa ñoo naan café guddeeg bëccëg ah nu may def ko doo lekk ba suur tey dundee café man mosuma gis jeeg bu ngootee nii xaaj ginnaaw lii baru ceeb lay togg moo tax man suñuy añ damay teg sama pot ndox lu ma lekk jàllaleeg moom ndax ma gaaw a a de xool ni ma war a suur suum bi des fois di ko ma xañ noonu lii tamit kaa de ñun moom nañu perte moom dafa ëpp. sa baax na de. Hmm, ëpp na. yow Pape Cheikh. da soo demee ah. marché central da lay may man heure bu ma farombee mu may moo tax damay daw. mais Pape Cheikh li muy doo ko solandoo kenn. Eh, ma xam Pape Cheikh xam nga kan laa mu sañse ba ni mu doo Anta Ndiaye sa ensemble lan la xanaa ma sama tata moo ma ko jëlalee États-Unis nag la ci Pape Cheikh ko jëndee. xam nga Pape Cheikh wax ay turquie muy jël yow Pape Cheikh mu la jaay ko solandoo kenn. Ah, looloo tax waaye man. <laughs> man de duma jóg duma ko ubbiral ci buntam. Ah, bu ubbil boppam. maa xamul sax kër gi pare la wala château di rek. wallaay saw waa nday <laughs> ci loo ne way lay saw nii la nii ah nday ah mariage moom dig na la masha allah nday <laughs> tanya yi nag danga maa bëgg lu lah, <laughs> non oh, dara lay xam nga àdduna tamit amul solo ah dëgg la de mu ngi noonu ndeysaan da nga baax nag gars yi ñoo la rek ya. mais ku baax na allah anak kini, Ming mi ngi sama, biir ça ya, antre, ça ya, va Yes. kooku moom. waaw. fàtte ne lan la. nga yaakaar dafa jeex ci moom trop trop trop trop. maa ngi déglu lépp lu ci war bu ngeen demee hôpital man bu ñëwee dinaa ko gérer maa ngi jéglu mbaa mi ngi tane. ci li ko bàyyi ay xeet génn jàngi ba fii kenn xamul lu muy doon. kebanyakan dia Ini cuma ter ardo moy def li de me man dama ko def mais lamay régler sama kër mo régler nako ak ardo so juste que dama ñëwoon don la xol xol sa sœur bi ndax sa va me ma ngi jéggalu bu wéré wéré wéré wéré Thank you. <laughs> Gitu. Ya, ya, ya. man góor xaw kañ lay am jàmm rek da ngay wut jabar pour jéem a casé wu nekk ci jàmm keroog la problème yi di gën a bëri. yow kon woo laay sax. ci àdd waaw danga koy mos a saara doon aar. waaw. weng ak gémmiñ gi toj oto télé bi. looy wax ni aaro dafee ñëw di jaay weng rek làmmiñ bu takk ne daa dotam noonu ne man lay àq si ma gën koo bànni ba bàyyi eh, ko ba mu wax ba dem ma woo jëkkëram kalaame ko mu jaxase ko xanaa sëy ba tas na eh. looloo neex. yaay fa ko cher dëgg dëgg dëgg dëgg yow nii nga bàyyeegoo ba tey. Fatou Kiné fii laa la roof tàngaay sa saa wër la ndomb xas la ba nga ràpp pour man bàyyi nga ñaan ñi yow tey nga gën a mën a def sama lekk la maa ko moom duma bàyyi benn jigéen di ko jëriñoo man wax ji du lool de scénario bi mooy nan laay def ñun nan la ñuy def ba convaincre Chacha. ñun nan la ñuy def. waaw da nga naan nan ngay def yow ba convaincre ko man bàyyi may assister rek ndax yow sa xel da laa wër lii nga créé yëpp man bàyyi may assister rek. waxal daal en tout cas bul nekk défaillante daal yow àndal ci li may wax rek. kan laa doon défaillante yaa ngi ni ba nga ñëwee tëgg ko ma fi ànd ak ñu dem waaw nañ dem. la nag. ah li tamit ñu ko baax. laaxi nga baaxee ba tey bonoo. dëgg neexul bëgg say rakk. moom ku ñu ak suñuy caprice nag. laaxi nga jël lépp. dëxëñ daal di ñuy daal di ñuy uuf daal. yàlla sa jàmm yaay bi taawa yaay bi. Mhm. ndeysaan ah tey nag moom soxla woon nañ la trop sax. ginnaaw yàlla lii moom yow rek lañ ci yaakaar. te yaay suñu mag te yaakaar naa ne li ñu bëgg moom nga bëgg ah. ñun li nga bëgg ñun moom lañu bëgg Akine mhm. tey nag moom dañoo amoon cas bu doy waar cas bu critique mhm. mhm. ne ki mu doon génnal ko xamante woo leen sax mosoo leen a gisante ah, tey nag mu ñëwoon ci kër gi Fatou da ko woo mooy jabaram ki ko àgg woon dafay ruube fii ah, Fatou woo ko pour mu ñëw ne ko sa jabar dafay ñëw def ay dégâts toj fi ay télé def fi wooy xam nga rek yaa mbiru jigéen la te faatu xolam bi boo ko ubbee laay saw nga ciy fekk. da koo naroon a tax xale bee dem liggéey laay saw ba gisu tey laay saw ni mooy waral lii nag fi mu toll te yow lañ ci yaakaar pour sëyi parking nekk laay saw am nga defar ba mu baax enkin ah, tey na damaa bëgg nga jàppale ma ndax damaa bëgg sëyi sama bésu ah, sëyi tey la tey tey jii lañu war a jàpp dat tey war a jàpp dat man yéen samay raq ngeen. yéen bu ma leen jàppale wu. kan laa war a jàppale. merci xamoon naa ni ñu koy waxee léegi bi ni muy demee. léegi nan lay demee. scénariste bi waaw. tey ah, ah, dañoo ne ko moo bind scénario ah. bi. voilà kon daal man maay joué film bi daal. merci compre moom dafa gaaw a comprendre. gaaw <laughs> ñun dañoo ne ko sa jabar dafee ñëw. Mm-hmm. toj télé bi télé bi jëru 800000 francs. Mm-hmm. rajaxe ko sama télé bi. waaw toju ko ah, ah jàpp la da ngaa amee tension mbéj la ba sa gémmiñ bi dafa. rek. <laughs> yaa ngi dégg sa yaram day bañ yaa ngi. loolu yëpp ci film bi la. mise en scène boo ñëwee sa loxo bi fexeel noo ko aar ah, defee nii. Mhm. gémmiñ bi ma ko ba nii comprendre nga mhm. yow dee dee la. c'est ça ah. film bi rôle bi moo ko mokkalee rek léegi fàttali ne laay saw dina ko takk may takk te yow mën na mën na yow yow mën ngaa commencé luy mën ak yooyu yëpp yow yaay géré lépp ah. xoolal masque bi sa masque bi changé ko bul reetaan bul def dara mel na ku désolé da nga koy dindi déedéet bu ko dindi ah, garaawul na dindi maquillage dindi musóor gi xoolal kolu sol ma damay simmee ko dugg ci salle de bain bi sangu def ma waaw loolu du yàgg baal jarul sëlmu yow yooyu yëpp jaru ko kii mi ngi toog yow joué la jàppale sa or bi na dañ de voilà jàppale sa saa yaay suñu ma taal ndëkk judd ndëkk baax yéen daal bu leen demee fee defar leen ba mu baax man maa ngi ñëw waaw ka ñàkk ñaan lay di ngeen xam man jouer film rek laa man waaw bu leen ci dara xool bu leen ci dara na man yéen sama rak ndeysaan man yéen laa am ndeysaan ayo yow ndeke sama rak ji bëgg na jëkkër de ah, dinaa leen ko jouer ba ya? mu neex

Ardo daf fi ñëw dóor la ba sa gémmiñ gi ñëw fii kañ la dellu si. déedéet mère bi koy maase moo nekk ci biir mère jàngo dafa aay moo xëj yow kii aay la de. xëjaat gémmiñ gi ba mu moom dellu si na ba muy takk chaîne or moom ak jaar sañ si macha allah. yéen li ngeen fen du seen âge. kan moo ma dóor. Eh, ah? ah sama jabar. eh xoola Ndeye Ndiaye man duma sa morom seen yi ñàkk fayda yi laa bëgg ngeen génnee ma ci man kenn dóoru ma kenn toju fi dara gisuma kenn yenn lan la lan moo fi jar yéen yi ngeen di def nii yéen daal page boo leen ubbi rek lire ko ba mu jeex la ngeen ne xaar ma dem ba ca des waaye di ngeen xam ne seen bii ngeen di ngeen di man duma ci boq man da ngeen fekk ma set ba pare doo leen ma tilimal gis nga laay saw soo bëggee sa jabar bi yóbbu nga téye ko bu baax xam naa ne ku la bëgg la man nag gisuma ko mënuma laa xam ne kii la waaye dégg naa ko muy wax te ñii nag génnew ma ci la muy classe ak la muy xeex ñii génnew ma leen gis nga ñii lu nekk sañ nañ ko sañ nañoo fekk gaynde tëdd ñu ruux ko gis na lii ñuy def lii moo ci gën a tuuti maa bokk ak ñoom benn deret baaxuñu guddi baaxuñu bëccëg sëyuñu sëyaanuñu buñ la tasal sa kër nag su fekkee bëgg nga sa jabar téye ko ñii baaxuñu de te duñu sëykat nag taskatu kër lañu defal attention bu baax a baax a baax te seen yii na ngeen ma ci génnee dégg da ngeen defe ne bu leen ma fekkee ci néeg bi di wax ak man ah, di ma jaay ne yéen yéen a ma ëpp xel dinaa nangu tey xam ngeen li ma leen magee nañ ci dem beneen a ngi ñëw. jadi apa dia jeex wala. bàyyi kon ma dem wuti fee café. de bàyyi ma dem. xam naa lo, ma la wax. toogee ba tey ma nga fee tegu gi merci

ki ne dootul man ak yow man maa la bàyyi te tey laa la gën a baax ki ne yow amoo jom yow amoo looy rus ki ne jigéen ju baax jigéen ju baax day xool lu baax mu koy def mais li ngay def nii non yow maa xam ni tax yow ñu war la takk deux heures deux heures trente secondes après sëy ba tas seetal sarab yow gëstul sarab xool mooy kan ki ne da nga bon li nga andal dara baxu ci ki ne yow yaay kan ba nit du am jamm ki ne yow yaay kan ba bëgg privil sama bulan nga bëgg ko jël pour lan ki ne pour lan man waruma heure ardo tay la ko bëgg tay la ko gëna a te du ya tax ma koy ba mënon na def nak ni nit ñi di def ah, ak yow sama jabar di fo di def laman nih, neex segam ba lay doxaan muy neex la la foowewul waxtuma la ak ba ma soxna té di nga wër ba dé do gis ku melni ni man. la merde yaay ngi dégg merde sa wax bari na. ok gis nga man gëno ma ci nday gëno ma ci bay dama la bëgg nak té yalla rek tax way du ñak jom du humiliation bo ma def té yow suma xamone fo nekk ci man rocc na la ba nga set sanni la yow jigen mo tax nga ne dang ma bay jigen mo tax nga dang may toroxal samay kanamu nawla gis nga man so ma bayé ma def la ni foré classé te laay pour wala ne man góor du ma stressé góor du ma fatt ba ba jour ba nga ma bàyyi jour boobu laay dem ba désert du Sahara sàjji fa sama terrain tabax fa sama kër toog fa kan moo ma fay fekk naan ne sa dëkkandoo laa doon désert du Sahara xanaa kon man maa bañ stress. ci ne la bàyyee demoo désert du Sahara yàgg na ba tey yaa ngi fii toog. laa yow su ma la woowatee téléphone maa ma romb ci mbedd mi rek na la sow noo def sopp ma balu football di ma dóoree penalty kon xanaa bàyyi naa la. bàyyi naa la waaw man maa lay dóoree pied eh damaa bëgg nga toog ñu wax. kuy toog yow damaa bëgg nga toog ñu wax. yaa ngi dégg. ki nga lu may wax ak yow. toog ñu waxtaan ba pare nga soog a dem. laaj yow laay waxal de. laaj. waaw. xanaa waxuma la béyee gauche de balaa di la dóore ma lay bule. xoolal man sa yi nga nekk ne lee. yow eh, it nga taxaw foofu laa. yow xeer kan ngay jël xeer. yow kan ngay jël xeer. kan kan ngay jël xeer. may dàqa sama béy yi ngay wax. tegal xeer bi tegal. yow lan nga bugg yow. tegal xeer bi suma béy yi lay dàqa yow suma béy. tegal xeer bi yow lan ngay daw. yow lan la man dinaa la daw man. ah dawoo. yow lan la yow ndi ah. ndijaay yow lan la yow. yow kaaw kaaw ngay naaw di fëree may may dog sama soxla ngay dog sa soxla. Ah. lan lañ sekk man ak yow loo jël xeer su ma dexee du ma dakka su ma ay béy waaw béy bi nga leen di dakk. waaw boo ko la nga béy. yaa ngi may tooñ encore. dama ne ngay daw. lu may daw lan laay daw man doo ma bàyyi yow yow ndijaay yow mun la yow fa ma fekk nga ne dangay am ak man problème ah, ah. man lan sekk ak yow yow man dama laa bàyyi. tun tranquillement ndax man sakkatuma ak yow dara bañ na keroog bi ma la fekkee jakkab faalewu ma la faale bi ma la fekkee keroog si tuuru paa yi faalewu moom faale wooma nuyu naa ñëpp nuyu ma la nga war a xam ne yow man bàyyi naa la doo ma bàyyi te yàlla tax léegi pour ma bàyyi la yéen na ngeen di yaakaar li nga ñuy def lu ndaw la woo ni ñëpp a ci dëkk bi nga taaj leen déet ñëpp toog ngeen dem humiliation humiliation boobu tax ba waa dëkk bi fu ñu génn ñëw waaw waaw sëy bi amatul. léegi man nga dugal ma si loolu man. waaw léegi nag loolu noonu ah, sa jarbaat tamit waxu la sa doom waxu kooku day def plainte. day def plainte. loolu la wax day def plainte. waaw <laughs> moom plainte lay plainte di bis bu plaintee dinaa ñëw seen kër dinaa la ñuus yow benn moom dinaa ko ñuusaat ba ci ndeyam dinaa ko ñuus pour war leen pour plainte bi gën a sax si charge plainte bi. man loolu leer na la yow bu fekkee ne wàllum xeex moom xeexu ma ak yow. man dama amee tension dama amee tension su ma amee wul woon yow man ñaata nit laa dagate fii boo laajoon dëkk bi dagate naa ñaari nit. Ah, man muy ñett kon ma la dagate dama amee tension mënutuma xeex bi mënutuma xeex bi. leen yow da may daje ak man nga may toroxal di ma def yi nga may def te am na loo xam ne bëgguma ko suma diggante nit ak gàmmoom. Dạ. bugguma ñu ne gàmmu bii moo gaañ gàmmu bi wala gàmmu bi moo rey gàmmu bi ñun pul duñu kaccee du day dal te bugguma loolu masamaa ñun séeréer ñi nga xam ñoo lay ñaf ba nga tëdd ci suuf duñ la coron bi loolu leer doole nga am wala yow dangay yow yow gàmmu yow dangay eh, fan nga teg sa doole bii ngay jaay koo wax nga ne danga koy door danga koy door yow mooy tur sa bopp man xam lu fan yii dama bàyyi xeer ndax dama amee tas yoo man wéruma kon bu fekkoon jamono bi may wér ah. man du ma xool nit ñaari yoon te dóoruma la jaasi ci loolu waaw jamono jigéen wér doo xool nit ñaari yoon te dóoroo ko jaasi waaw bàyyi ah? sama xoolal yaa ngi dégg buy ah. ma génne jaasi ma man yoruma fii jaasi dama ne génne jaasi yoratuma jaasi xam nga ba ma lay woo ngir yàlla pour baal la moo tax baal la moo tax ma woo la baal la moo tax may boo fi bees laatee affaire bi dama lay ñëpp ba nga tëdd ci bis boo ma dóoree ba ma am arrêté kër léegi yow gam yow léegi yow léegi yow man boo ma dóoree ma dee si àll bi lan ngay wax. man yow ma rey bëri na 17 personnes. Hmm. Ah, mbay maa ko rey Moustapha maa ko rey ku ci nekk dama ne na ngandi pour teel nga waddi ci naan AVC. mbay yaa ko rey maa ko rey Moustapha maa ko rey. yaa rey Moustapha. waaw 17 personnes maa leen léegi. fukki nit ak juróom-ñaar. gàmm yow yaa leen rey ma def la fukki nit ak juróom-ñett. gàmm kan mooy naka sa maam. man ni Salman Faye ay doomu ngeen ngeen. Salman Faye doomu yow di jaay yow li may naka ak si dëkk bi yëpp ndeke yow doomu nga yow. cim yow sa maam xam naa ko naan kat sangara bu mag la yow. looy daw looy daw looy daw. maa la ko gën a am fuuf. Nan kati sangara bu mag la bu bon bi dina la ambis katar ñu nokala ba ngi day bu ma la bu ma la jàppee su ma la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

est-ce que réellement man ak yow ñoo bokk ndey ak baay man loolu laay laaj deret gi daw ci yow est-ce que mooy daw sama yaram bi ndax yenn yi nit bu ko mënee sax yaakaar naa ni du ko def li may laaj nag mooy ba xam ma ak yow ñoo bokk ndey ak baay wax ma dëgg te bu ma fen man ak yow est-ce que yow deret bi daw si yow mooy daw sama fii hmm? loolu ngay laajte. waaw ñoo bokk benn deret waaye bokk ñu jikko. ñoo bokk benn deret waaye Ndeye njaay seen jukko baaxul yéen salte ngeen tilim ngeen yéen war ngeen a ñëw fii ma nekk magum jëm ngeen may defloo seen yu ñàkk fayda yi gisagu leen dara nag yéen lii lan moo ko fi jar yu ñàkk fayda yi lan la lan la lan moo ko fi jar damaa bëgg ngeen baax te xool fi ngeen di teg seen tànk lii dara jaru ko su la neexee na nga ne dama leen a bañ su la neexee nga wax lu la neex waaye man mii sega maa ngi fi chaque jour lu bon loo leen nekk dinaa leen fa génnee dugal leen ci lu baax yéen li ngeen ne lan la lii lan la yow kaa nga ma kaa nga ma def ah, lii nga ñuy dugalee ci lu baax pourtant ba ñëwee fii ma fàttali ne di la ko tegloo boo ñu waxoon lii nga ñu wax kon doo yegg fee ba ñuy toroxal bañ ne tort nii fi mu toll nii ñun ñoo raw Kumba Sankalane. lii baax na ci yéen. Ah, baax na ci ñun. sa tey moo lay tax nga xam sa suba. waaw li lay wane ni nag yow ni nga mel ñépp xam nañ ko sa sa xor nga iñaan nga iññañati nga yow sa jikko tey laa dama ko doon laam-laamee rek sa bon tey laa ko jàpp yow tey laa xam ne yow kuy bon yow lay dimbali waaye yow li ndam nga ko jàppee say rakk nga toroxal leen nii ci kanamu góor. dañ ñu waaw lii day wane ne bu ñu woowoon ci digg pénc mi ne carrément Chacha kaay waxal say raq lu baax dig ñu fa yàq kete me yàquñu fa comme ni ñu yàqee fii waaye bu boobaa waa koñ bi dañ lay yuuxoo ndax dañ naan bokkul na da ngay koy jur loolu dëgg la say raq bu ñu bonee sax dañ leen a war a setal ba ñu set bu ndax ñëpp demee na nga woole ne leen carrément li ngeen def du dëgg du yoon bu ëllëgee tege leen ko ni tege leen ko naa. loolu xale lañ koy wax. Ah. waaye yéen ay magum jëmm ngeen gis nga Ndeye Ndiaye seen caprice yeeg seen yii ngeen di def duma leen seetaan mukk ngeen koy def ndax tey ëllëg lu ci am lu metti lool man la ñuy wax ana chacha nekkatu leen ay xale magum jëmm ngeen bu la neexee nag nga ne dama leen a bañ lu la neex waxal baax na man ngeen di joué loo film defe naa ne senario bi mat na de. waaw ah, na waaye tamit ñun euh, chacha dinañ la wax benn affaire de ay xale lañ de dëgg la. yaa ñu gën a wéyu ndax ni ñu tegee scénario bi gis na ni ñu ko defee. gis nga Ndeye Ndiaye. Mhm. lii may def nii pour jubbanti leen wan leen àddina ndax su ma leen bàyyee nii da di defe nii lii mooy dëgg te lii baaxul da ngay wàccee sa yow Ndeye Ndiaye yéen ci nit ñu baax ngeen bokk yow boo xoolee rek yéen war ngeen a baax lii lan moo ko fi jar gis nga nag damaa sonn gis nga seen yii tey lay jeex. ndax fii du këru caga du këru passe partout du këru yéen tey jii boo leen deful attention kër gi doo leen fi fanaan seen yi tey lay jeex yow loolu sa hymne national yow loolu nga xam génn kër gi bañ fi ñëwee ba tey moom ngay way di ko waxtaane waaye nag wax nga ko yaa ñu bandi sa saa yow ba ngay bandi booba ñun ñu ngi ci kon boo ko ñun duñ ko gëm duñ ko defal lu la neex teg nga sa ba pare waaye dinga xam ne ñun ay xale lañ waaye am na lu bari loo xam ne mu ngi suñu bopp bi te it mu ngi suñu nopp bi du dëgg demuñu gànnaar waaye xam nañ ni mël faa fay sañse te attaayaa fay boisson danga ne dañuy génn kër gi euh, waaye jàppal ni bis bu ñuy génn kër gi ñu nag yow ay ànd dangay diri sa valise ñu direndoo suñu valise waaw <laughs> laaj ma lu tax papay Paco mi nga déclaré ni moo jur Paco <laughs> bul yaakaar ne ñun téye nañ lool de réglel nak bala nga ñoo wax lo fofu la yam ak yow guerre gi nak mi ngi dogo commencer man yor naa appartement bo yoré xaliss setti ma yaa xam lay liggéey donal taxi man li ngay war ma ko ñewal def ci man appartement bi faaw ñu fay courant bi yo yombeleen ni gañi bokku ci ñi réglé kaay a def li a def mbaaraan bi du solution You're li a def li a def dama wuti beneen solution You're li a def li a def You're li a.